Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit mbokki taalibe yi leen ziyaare bu baax leen jox seen wàcc waay tey danoo ñëwoon fii ci Touba Argentine TV ngir bëgg a barkeelu ay xasida rek di 18 safar gi barki borom Touba auzu billahi mina sheytaani rajiim bismillah barki borom Touba barakatul lazil wujud wal قد وجب لنا تنمي الخدم بركة الذي الوجود والخدم قد وجب لنا تنمي الخدم بركة الذي الوجود والخدم قد وجب لنا تنمي الخدم سبحان ذي البقاء والمخالفة من خاد لي أمنا بلا مخالفة ملك الذي خيان بنفس وجب لو إلى كل يد خاد الغجب alhamdulillahi taala waxda kama lawul hamsundi wal waxda liman lawal quradu wal irada wal mumaxayati alhibada liman lawal quradu wal irada walil mu maayaatil xibaada liman lawal xurratu wal iraada walil mu maayaatil xibaada liman lawa samu kama lawul basar maal kalaami kulli sayin wa nasar huwa taala alqadiru almuridu alimun hayyun huwa alfaridu allah wa rabbuna samihun wa basir wa mutakallimun wa jada bilxusur lam yannu adu adamun wala xudus ولا فناء للذي منه الخديث رب الورى ليس له تماثل ولا افتخار بل من ماثل حمد لباخ جل عن تعدد وعن توالد وأصل ودد ملكنا لم ينه هجس أو كرام hatun lahu wa laysa yanhu kara ahmadu man jahlun wa mawtun wa sama lam tanxuhu wa qad kafani alhumam nafaani allazi aman wa bakamu lam yanxiya lool wa nixmal hakamu ijaada kulli mumkinin wa ijis liman kafa kafat lan sirka la rabba xayra waan siwaaw hanin lawaab taqaru man xadaaw rasuluna nabiyuna muhammadun habdan rasulun ixtamaaw samadun هما وسب بأمانة جزب لغى بتسليخ إلينا كذب يقاد من خيانة وكان ما رام خدمتي لغاو خدما يقود من خيانة وكان ما رام خدمتي لغاو خدما muhammadun basharru man lawal xidam ka ruslihi muxaddaman kun saa xidam muhammadun basharru man la lawal xidam ka ruslihi muxaddaman kun saa xidam inni yuxaatibun nasaara turaa في أرضهم لمالك المتبرر إني أخاطب النصارى ترى في أرضهم لمالك المتبرر تياغنا خديم لرسول الله وأنني ما زلت ذا تبرع من كل من بالكفر ذا تجرع ولا أدائن ذوي تنصر إن شاء من يمن بتبصر سبحانه رب الإله التجي ومن وتفريج الكروب التجي أكرم به ربا يقود ما يريد من المنى لمن من الخلق يريد سكرتها سر أذكرها ولي فادي ولي askuru axbudo bi diini lislaami muwaxidan loomaat islaami wa tasxadu liya bi xawli yama yowmal jamil alamina rabbi zahiran wa batinan xaysu akoon railan والمصطفى وسيلتي إليه صلى بتسليم هل يا لي يا جملة الخلق غدا ليوما بيسر بكوني الدارين عبد الله خديم عن عبد الله ميد كل مسلم ومسلمة ميد كل مجرم ومجرمة كتبته أحمد ذا صلاتي على النبي الله زي صلاتي كتبته أحمد ذا صلاتي alal nabi lay si si laati addi Sëriñ Tuubaa ñu jëm ñu